gañ na Ardo arbitre sifflé na dimanche 22 janvier fii ci arène nationale Liss Ndiago mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Ardo moo ñu woon kanam mbokk yi Ardo mi ngi jógee ci Saba fii la woon Liss Ndiago jógee ci ki xam te ne moom mooy Tapha Mbeur aca Thier ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi Ardo jógee ci victoire digganteem ak Saba Liss Ndiago jógee ci défaite digganteem ak Tapha kon Liss Ndiago défaite interdit lamb tegtal lamb tegtal ndeysaan Ardo Liss Ndiago Ardo à gauche Liss Ndiago à droite. dafa mel ni am na lu muy lu muy kii. lu muy signalé lu muy moom arbitre. ndeysaan xaw nag lan lay signalé. ndeysaan. nee na ngeen bëre. ba tey dara xewagul. bëreegul nañ 2 minutes 55 bi duñ ko sorko sorko. déedéet parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci daan. da ngay ci kaw. combat déclenchement la. de déclenchement la. arabu daana day dem ci kaw. Liss Ndiago bu ñëwee day bakaat ci kursu bi. ndax parcel la duggal ñak fa. duggal parcel kon warul ñak ndaysan Ardo nga bëgg dem. lu mu fekk bu démé Ardo wa lu mu fekk. lu mu fekk. ndaysan Ardo. Ardo Liss Ndiago. wa Ardo mo ñëw wala Ardon bi rapport bi damay Ardon bi. ah momu bu ñëw de waaye attention. waaw di lan la mbëb na mais Ardo Ardo dafa bëgg a kii bi bëgg daa bëgg a dox ci kaw. mais Liss na ko dóor na mais Liss li muy dóoree baaxul. déglu bi baaxul tamit encore. ay xale lañu. ndeysaan te ñoom ñaar nag dañoo tolloo génération. tolloo âge tolloo lépp. tolloo taxawaay tolloo lépp tolloo ba pare kenn ëppul sa moroma. ndeysaan li mooy làmb. làmb da boole ay xale yu ay dayoo. mais félicitations Jax production. non kenn du moom Jax. tey mu décoré suñu doomu ndey suñu jigéen ñi. Ami Collé waaw drapeau Amina Thiandoum. la puissance. mu nekk xale bu jigéen bu jàmbaare. mu jigéen bu mën góor. xale bu jigéen bu baax. ndeysaan bu yaatu. koo xamante ne ñun ak moom ñoo nekk ci milieu bi mais jépp wuñ ko. du xuloo du xeex. du mbéjee du xoole te du wax wax ju sew. du chance ah, mérite la ndeysaan du chance mérite la Ami Collé Thiandoum ñu félicité encore une fois di ko ñaanal drapeau bi di ko wax mu am yeneen yeneen drapeau mais Jax production mention spéciale à lui sama kaana bi. liñ ñaan ku liggéey da ngay fayeeku. ndeysaan. Ami Collé mi ngi liggéey moo tax day fayeeku. macha allah. ndax boo xoolee fu lamb am ci Sénégal. mu jël paasam jël dem. ci ah, lutte simple simple. lutte avec frappe fépp day dem bi nga xamante ne bii mooy dundu lamb teewal lamb kon biñ ko décoré tey wàcc na ndax coono bi nga xam ne bi nga jund ci biir lamb tey am na bànneex ak ay mbokkam. ak ay fayam ak ay dëkkandoo ak teq teq pàdd ci la ci la am la bokk. gëj naa xaw gi si jamono si jamono de guerre numéro un. acca ceer yéen waray. Ardo Liss Ndiago. Ardo Liss Ndiago oh Ardo Liss oh daje nañ. Ardo xam lu bëgg. jàppante bi la bëgg. jàppante la bëgg te Liss tey xeex bi la favoriser. ndeysaan mais Liss su bëggee dóor mu daanu ni muy xeexee. Ah. ko dóor mu daanu. non ni muy dóoree sax baaxul xeex ak moom. waaw bu fexee jël mais ndax dóor yi muy dóor day laaw. day laaw un deux trois jël na tànk bi waaw waaw. Liss daan na ko jël bu oh, daan na ko jël bu rëy daan daan na ko daan na ko jël allahu akbar. waay jël bi rëy na waay. Oh, jël bi rëy na. ndeysaan na la. Ardo lis na la Ardo nga cey cey waaw Ardo lis rab Ardo waaw Ardo jël tànk bi lis mooy rab oh, rab oh lis waay Ardo jugal démérité woo oh Ardo copain o Ardo woo bëre nga ba daanu mais lamb Ardo waaru na Ardo lamb la xool oh, Laurent waaw xoolal keerut kaay waaye xoolal ma Laurent waay ndeysaan mais Ardo jugal sa jugal jugal Ardo ndeysaan da ngaa bëre woon